sant yàlla julli si yonante bi di sant suñu ñaari waajur mhm. di gërëm waa yoof yëpp di oo Kayaar Yoof Ngor Wakaam yëpp maa ngi leen di woo fépp koo xamante ni daal léboo nga fa rek mhm. maa ngi lay woo ba Tëngéej ba Tubaab Jalaaw yéen ñangal mhm. la sama yaay cosaanoo tamit maa ngi leen di woo di woo waa Yoof gëm nag di leen xamal na daan def rek nañ ko def quoi ndax làmb la rek manul weesu làmb di nuyu mojjam yi nga xamante mooy suma lépp kooku moom dama dama dama koy beral loxo à part di nuyu kiri booy borom jën yu baax yi waaw di leen bëggee tamit di gërëm presse mi nga xamante ne tey jii nii amaana toog naa saison bëriwuma mu mm. yàgg si man lool mu ñëw décroché suma combat mm. maa ngi nuyu tamit sama adversaire Thiatou Daouda Fall mm-hmm. di leen bëggee bu baax a baax yéen ñi presse bi yaa ngi nuyu sa adversaire nga ne gëj ngaa bëre ana balance nga def nga ñëw dugg ci Thiatou Daouda Fall lan moo la duggal ci Thiatou Daouda Fall waaw cest à léegi mbër yi dañoo safoo di bëri ay combat yoo xamante ne da ngay carrément xaaral ma dem jëli ji am victoire man chaque jour souvent bu may dugg si làmba damay bëgg làmba joo xamante ni jour ma si am na làmba yoo xamante ni man ma a ane balance sax ma ko gënal quoi. Hmm. moo waral man du ma dugg tey jii nii day yomb. moom nag moom suñu combat neex. dina neex. ci lan bu bëggee tamit mu sedd dina rek a ma ñor te dama koy am ko am ci kaw kii. waaw <coughs> li mu wax kay dégg nga ko jaru nga may xool. léegi da ngay poser question ma tontu. ma la poser question tontu ko waaw. ok léegi moom ah. li wax noonu xalaatam la wax rek ak bëgg-bëggam. Ah. ñun moom ñu ngi suñuy entraînement. soo bëggee dina neex soo bëggul nag du neex. non day neex parce que ñun dañoo bëgg. Ah. moom day bëgg bëggul dañoo bëgg. moom day forox forox ñun dañoo toll. ndegam moom moo bëgg wax ma la man mii nekk sama carrière moom dafa raté. man dama war a ñëw jaal waruma rate. mbër da nga rate man dama war a ñëw jaal du ma rate. waaw ah, dañu juwaale rate ak ah, teel a dugg si làmb rek ak ah, a capable ñu teel la dugal si làmb teel a am sañ-sañ moo tax ñun ñu teel a bëre mais làmb ji boo bëggee dégg-dégg moom li muy jàppe échec du échec te dinaa ko xamal naka làmb demewul noonu moom li ma la wax jóge na si bërka Dembo Ndiaye moo tax Kaaw Gourdin mhm. mais làmb noonu la quoi làmb noonu la mais di ko xamal na naka ak lépp lu mën a jàll rek man maax moom ñooy daje pour l'instant wax jarul muy bëri ah, non dina bëri si kaw ñu jaay suñu combat ngir place mais après à part ça su ma wax jaratul muy bari pour le moment man jëf moo ma war mais du ay nekk fii di wax ay yoo xamante ne doo comprendre quoi moom na waajal moom jour si ñu ñëw rayante da ngeen di rayante ñu ñëw rayante rayante ci rayante la woo de non benn idée moom rayante la man dama koy tër si jour waaw muy gaaw di guddi di bëccëg gin bu yoof maa lay daan négocier wu ma ak kenn yow da ngay négocier man négocier wu ma su bis baa incha allah maay toog sa kaw. mu neex ko. mu naqari ko mu neex mu bëgg mu neex ay mbokkam mu naqari ay mbokkam dama koy daan. mu bëgg ak muy bañ. lépp dama koy daan. muy taw muy naaj. déggoo ma xanaa. balaa woon xam dama koy daan prince def laa mujj léegi léegi ma daan ko léegi léegi. la ilaha illallah. buñ paree ñu taxaw tali bi léegi ñu bëri. déedéet xoosu laay bañ. man su ma làmb dara du si yàgg nee naa la booy bi amul fenn fu ma toll si wàllu làmb yàlla xam na loolu kon li muy wax nii dama ko jàppe kon xale buy signature rek parce que ñoom noonu la ñuy communiquer quoi. ñoom booy yi ñoom dañ jàpp seen bopp ay booy yu ndaw. mais dama ñu la làmb pour le moment ñun màgg nañ si waaw waa géejawaay lu ma leen wax tooñ man maa caatu Daara Fall ñooy bëre bëre maa waa ah, géejawaay waaw loolu yëpp mën na ne ñun ay espoir yoof lañ ay espoir lañ kon lamb ji moom déggoo li ma la wax moom dañi carrément ma bëgg damay daanu ma bañ damay daanu nañ bàyyi ba la jour pour l'instant fii mënuñoo wax wax ba arbitre sifflé mais le jour yi incha allah na sul tànk yi taxaw ñu rayante mooy li ma la wax rek man aw ma lu may négocier booy bi aw ma lu may négocier moom moom mu làmba ji dañuy xeex mu bañ làmba ji dañuy xeex te dama koy daan ci kàttanu yàlla te moom li ma koy wax su ko neexee da nga koy daan su ko naqaree su ko neexee mu naqari mu kontaan mu mer yëpp dama koy daan. te leer laa fii laa ko waxee woon te dinañ ko waxaat. loolu de kenn mënu ci dara. ci gàttal dafa am benn wax wooy faral di wax duñ ci bàyyi xal waaw ak loolu it Balla Gaye bépp am nañ ko. Mm-hmm. kii modèle am dama ko am ba jeexal ko. waaw moom ban genre modèle la. am naa ko. ban genre modèle la non dama la wax kàlla mais am naa suma écrit du benn du ñaar beneen bi mooy moom mii toog. bu yeboo ITV interview yi muy def. waaw diggante fii wala làmb ji. mu sant bu baax ñu koy jàppale. te xam li muy wax. xam lu muy wax te xam ne bu subaa sant beneen bi mooy caabi bu ko fis de Balla daanee woon mu ngi si rompoyaare jàlmbaay bi. Ah. damay ngem ñëw jël ko dem ñëw daanaat ko delloowaat caabi ji a keneen soxlawaat ko. caabi bi nee na mu ngi ci ay de. waaw mooy li ma la wax rek làmb moo weesu loolu. man jëlaluma kenn revanche bu mu bul nangu kenn di ko jël jël revanche man ah moom la moo li ma wax ma fils de Balla jàll na yàlla may na ko ndam. mais man ah moom na pare lu mu mën a pare naka pare. loolu am na ji mooy li ma wax wax ji jarul muy bari mm-hmm. waaw dañuy présenté wu nii rek affaire des na lu bari mais le problème en est man ñëw ma pour di wax nii pour gars yi di xool wala di rey mais li ma lay wax nii gëm-gëm la. moom dañuy ikiri Balla Gaye am na modèle bu ne. Mm-hmm. man su ma ikiri man njaxas la. njaxas la te njaxas boo ko waxee mooy tudd nga lépp. kuy ay ñoom moo jaa nga fa. ay ñoom Ablaye Diop façon lourd bu ne am na fa façon bërikat bu ne am na fa. ay caatu ngewal ñoom ñëpp a nga fa ay booy caatu ngewal ay petit l'enfant. am ngay xeexkat am ay bërikat. lépp am na yoof lépp am na ay Malick Niang kon ñun amul loo xamante ne tey jii ñu ngi ragal si wàllu lamb bu ñu demee bay ragal si wàllu lamb dañuy tikki suñu ngeen bu dem joxe ko di ko wax na moom na pare lu mu waaj doylu am nga am nga moom moo am Balla Gaye ah? ah. ma lim moom day daanu ñooñu ñëpp dama leen di bu mucc yoon di ñaanal képp ku nekk école lutte Balla Gaye am combat yal la yàlla may com may ndam. waaw ñi si amul combat yal la borom bi may combat may leen ndam. ok wootal ci une minute rek ba pare ci des ñu xaar ba kii. avant may woote. dama koy wax ni ko man musuma summeeku stade. ñaan entraîné na wala entraîné wu xam lu ñuy laaj ndax def na nder te damay def nder à chaque fois. di woo ñëpp ñi nga xamante ni ñoo war a jàppale Thiatou Daouda Fall di ci woo Aliou Lo depuis saint di ci woo Pathé Cissé Espagne xam nga di woo waa diaspora yëpp ñoom Petit xam nga ñoom lay ñaan depuis États-Unis xam nga di woo monsieur le maire suñu lépp xam nga Momadou Ndiaye suñu maire bopp. di woo Malick seen mu jàpp ci combat bu baax a baax a baax Alioune Sall maa ngi koy woo ci làmb bu baax a baax a baax monsieur le maire Pape Niang Djibi Keita depuis Italie ak soxnaam ñëpp maa leen di waa Belgique ah jaru may tudd seen tur famille Fall xam ngeen seen bopp. xam nga da leen wax xam nga combat bay ngoog seen combat la waaye nag mooy loolu noonu waaw moom jàpp nañ day ñëw jaar jaal <laughs> mais bu soir day xaar. ok jërëjëf looy tàggatoo. waaw mais noonu la demee c'est parce nit booy duggas dara te gëmoo ko tamit man nga bàyyi man dama jàpp damay ñëw faxas dem sama yoon aw ma sax lu may hésité si loolu di woo baax a baax a baax di oo Abdoulaye Diouf Sarr di oo Moustapha Tall di oo suñu maire ki nga xamante ni moom la fi yàlla teg jamono jiñ toll nii di ko woo si combat bi di Ba suñu bi di ko woo bu baax di oo suma mag Jaaju Ndoy di ko woo si combat bu baax a baax a baax di oo waa Yoff gépp di oo ay Maxu Baye Fall di oo ki nga xamante ni jii suñu lépp la suñu papa la suñu lépp yaa ngi dégg kooku ñu ngi koy woo bu baax a baax baax bay mooy Moussa lur ñu ngi koy woo bu baax a baax si combat bi di ko wax carrément nañu pere xam nga lamba ji ñu ñëw def ni ñu daan def rek si kàttanu yàlla te noonu lay demee incha allah di oo waa Yoff gi bàyyi a kenn di oo sama waa écurie tamit di oo samay dirigeant ku si mel ne ay ñoom Baye Ngañ suñu président Pape Baytir di ñaanal booy écurie bi yëpp ñoom ñii nga xamante ni kenn amu si combat yàlla na leen yàlla defal combat may leen ay ndam di ñaanal caatu yoof mi nga xamante ni tey jii mu ngi dugg si làmb yàlla na ko yàlla may ndam ñoom ñi am combat muy caatu ngéwal tamit yàlla na ko yàlla defal ndam moo Modja moom mu ngi si li nee woon rek nee naa la ndox du bàyyi yoonam kii làmb dafa am loo xamante ni daka si def te moom du wanteer boppam kii tey am na suñoo xamante ne buñ ko doon jaay duñ xam njëgam dañ koy wanteer mais man mi nga xamante dama nekk xam bu dee bëccëg man xam naa njëgam te xam naa li muy jar Zador nga sol de waaw Zador ñu ngi a a ñaan bu baax a ñu gën a ñëw ñu ñëw gën a si affaire yi quoi. nga sol yow. groupe waa Soy ak a waaw di leen jaajëfal bu baax a baax parce que lii yombul. am jërëjëf lamb ñi ñu ngi naan deena ñoom ñu ñëw dugal seen loxo xama xama musée aussi ñi nga xamante ne ay xale lañ war a jug dañ leen ci jaajëfal bu baax a baax a baax di sant sama coach sama papa sama lépp ah Lamine Faye fay doo sant bu baax borom may inter bi lamb ji sa lamb la jeex na jërëjëf kontaan nañ ci yéen bu baax a baax